عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق moom nag moom la moom la wàccee de jotee daal bëgg de maa ngi mu ne nag loolu nag dafa def nag ci suñu loolu bu ñu defee nii de mu ne wa ije nag moom su ko nag dana na moo gën nag ñu saraxal saraxale wala ak wala ñaate mu ne sarax lu baax baax baax ak wala ñaam lu mu baax baax baax tey jii am euh, tabaski ray ko moo ko gën de mu ne wax nii la waxee mu ne nag waa bu ñu si àggee dama mu ne xar mii nii dama ko bàyyi jub tabaski na ko bàyyi jub tabaski de bu mu ko rey de ma def ko mu ne ma ba saa yu dana la ñëw yaa sa sama xaar dem mu ne bi wax ni ci wala laminam de mu ne nag xam nga def tàmbali nga def ala mahrufi ci luñ xam de mu ne wa mahmurin koo ko noonu de kon jaam moom tamit wàññi la ko de mu ñoon ba koo xam aji de di aj de ñu ci boobu de waaw waaw mu man laa yettaajo koo xamante ne ah yéen njëg la filaan at indal de maalik de imam maalik dafa wax ne mu ne dawal ci daal ki ko war wala ki ko a def mooy koo xamante ni am ni yëpp ci ndëgam ni du ko ci ko ci attande maanaam nga xamante ni soxla ci xaay boobu mu ne a a ko ci rek bu fekkee ne bu fekkee waaye loolu la ci ak imam Maalik la mais yeneen at yi nag ñoom daa ko ci dama ni imam Saamil ak imam de ñoom daa ko ci loolu de mu ne nag ci lépp nag laa ñeel ci bunde bi daal ci loolu wax na moom wax nañ ci biir ko leb waaye nag wax ne yeneen borom xam-xam wax nañ ci ne su fekkee ne li di ko lebee wóor na ko ne dina ko fay kon waaw mën naa def ci moom ci tuuti rek mu ne nag wa man indoo képp koo xam ne am na taw baa ni ñaari bokk nag axal yi maa kenn ci ñaar yëpp ci dama koy def baa mu jaay tawu benn bi de saa ni ñaareel bi de tawu ñeel ko saa ni ñaareel bi de mu ne képp koo xamante ni nag dafa am ñaari jëre jëre yoo xamante ni bu ko jaayee bu jaayee benn bi dana si mën a am tabaski mu ne kon na jël benn bi jaay mu ñu mën a am tabaski de mu ne wasap saptal nag na jëf ko ne mooy mu ne ñaar kër de tabaski nag ñu ko saptal nag ci biir kër de mu ne waaye da am na wala am na lu tëm nag daa xam ne mooy mooy xar de su ma bakkaroon topp nag nag su ma ubbi liñ topp ngërëm su ma maax liñ topp fii dafa ñu waaye daf ne bu am na lu tëm ak daa xam nag moom mooy mooy xar su ma maax topp mbéy su ma bakkara topp nag su ma ubbi liñ topp ngërëm de su fekkee ne ñu nekk fii la waaye su fekkee ne ñu nekk fële la ñoom ñoom su boobaa foofu gëlëm moo may gën nag digg xar digg day ko ko jëlee mu ne nag ba sëñ yow nag sëñ na nag suñ ko wax nag mu ne nag wa baxalu ak kuy moo xamante ne ab daraanu ab xarala benn ay day jënde mu ne ab dalul moo gën de min xay yi moo xamante ne moo gën de loolu sar maanaam amul sar moo xamante ne dafa am gën jënd moo gën xar moo xamante ne amul ba jëndee mu ne waaye

na tey mooy boo xamante ni am na ñaari at ne wax nee na waxam nee na maa la leen ñeer ko sama at ndax xalal na mu gën a gisaane ñaare ma ne ñu ne ñu ngi rek bay boo xamante ni am na at dugg ñaari at ne ñu ne may wax xam am na ñaari at ñu ne déedéet may wax xam am na ak dugg ñaari at ne muy ñu ne tamit su fekkee tamit ci wax nee na waxam nee nag nee na bakkari ci nag moom mbind dana tey ni boo xamante ne am ñaari at ne wala ah ah wala saane nag man yaa yaa yëpp kan moo xam ne dafay soxle wala mali ne wala mali ne kan moo xam ne dafa feebar wala aj ba ak kan moo xamante ne dafa làmb al mag wa mag kuura ci lu sànne ak kan moo xamante ne dafa làmb ci kaanu nekk na gis fii nag deret dafa tabb waaye tudd deret ba tey baax na waaye su fekkee ne nag ndëjën bi nag dafa tabb nag ci sotti deret nag mu ne bu waa boobu nag dañ ko dañ ko sibbee waaye nag ba dara ci arrêté nag balaa tabaski woon ba tey ba dara mën tabaski de mu ne wa ba man kan moo xamante ni dafa dafa kon nag kon nopp boo waxante suñ nit ak boo xamante ne dañuy dagg nopp bi mu ne wa sama ak boo xamante ni dafa tënk mit mu ne nag tëralee ci nag waaw mu ne am na xarxaar boo xamante ni dafa dafa xotteeku ci kanam wala boo sabtaar boo xamante dafa xotteeku ci ci gannaaw mu ne woon wala boo xamante ni dañ ko jam wala sabtaar boo xamante ni dañ ko xamte waaye mu ne mu xaabal ci ak boo xamante ni dafa xott dafa xotteeku ci kanam mu daabal ci ak boo xamante ni dafa xotteeku ci gannaaw de maa xam wala lu ngeen ala mu ma ci dara ko ni ma nag yëpp tudd maanaam ndax dañoo ne ci kenn ku ne waaye nag yow nag bu fekkee nag nit ki xam ko ne su amee ci biir mën naa amal ci biir mu ne wasar naa mu ne wasar naa la bokk ko mën a mu ne wa iya moo mat ko kat mooy mu mat ko kat mooy bokk na dafa tàgg ñu ko bële mu ne wa ma xaabala boo xamul ko xaabala mu ne mu ne yéeme moom la def ni mooy la nga xamante ne ko saa dagg na ndax ko naan waa dafa kabide xaar xarit ba ci jettal rek mooy boo xamante ni nag dañuy commencé ci kese ba sa jettal ci kese ko rek mooy wax bi wax bi nag yow bi awal ci jëmbeen gi rek mu ne nag lépp wax bi nga xamante ni moo nekk wax bi nag mooy lay ji nii mooy min ayaamiha salaata ba ne jëndale fan gi de maa ko ci ci jëtt man la de du ko xamal ci bisam nay bi di àllarba dafa àllarba ak ajjuma ginnaaw julli leen nag nga ba sa baa mun na leen di nag imaam imaam ba waaye maam bu bu ci leen ba pare nag ba def waa bu ko defal waaye nag imaam bi leen naa validé diggante bi maam moo ko def su boobaa am na xarfaat waaye am na ñoo ne am na xarfaat bi de mu ne waaye am na wax ñu sax ñu nag mu ne bu jëkk wax nga leen di nag mi nu moo ci sax nag mooy ci noo ñëpp rek mi ñëw ci taarix bi bu nekk bu ci dem ñu ba ne maanaam ajjuma te wax nu muy njëkk bi di so mu amul xarfaat bu wax lu wóoru nag su boobaa nag ko mën a moom xarfaat bu leen lu ko ne waaye nag bu tey su boobaa soo amee mën ngaa leen di ربنا تبارك وتعالى من غير ما تقصى جب بلا جب ولا ولا ولا عذر من غير وعليك سالم وابر من لك من لك أربعة نفوس لك يا غير سبب لك من وإن كان لك جمرات جيجا لك كثير من جيجا لك نعم من أمر كنا لك فكي جيجا لك mun na leen itam ko guusal mu ne wóor na ko moom na xaadi ak ñaata na ak yaaw doy na ko de waaye mu ne woon des na mën na maa danaa def def de mu ne ba ñaati ko nag ñu ne dem na war naa ba ci ak guusal nag bu fekkee nag dama doon na ci guusal nag ku ko ku ko guusal ma mën ko lay nag mu ne yaa ngi ko teew nag waaye li mu mu mu ne waaye nag wala yaa ko dul jàmm nag waaye mu ne ak ak it mu ne maanaam na na na ñëwal na dawal ñëw oto bi mu ne alal ko wóoli ci kurox bi rek boo ne ak ñaari fan yi rek maanaam ci ci leen de mu ne paaka bi ñëw te bu dawal ko mu ne waye tak wala ko ci ñëw mu moy ci ko waye sama na ko la ma bi అనేది రాష్ట్రపతి వాళ్ళ సంబంధం من عاقل الدنيا ولا يقدر من يوم الدين